jigéen a koy moo góor taxawalooy jigéen taxawalu lii mooy jawoole yi ay waay aka jomba ñaaw mbay way naa la bu ca góor nekkul jigéen koy mooy mati faalo mati laay joobe xaali kurangoone ay waay ma mati faal man woonaa la aaye lamb bu ca góor nekkul jigéen a koy wala fii di jaxate yeri ngoone demba jaxate ay sa baay jiitu CNG lit bu Ceesoo tey la Samba Yaane Ngaan Njaay waaw ndeysaan lool du mën a ñàkk ndax buñ nee làmb nag dañ ñu woy looloo ma saf ñi nga xam ni ñoom la fi àndal ñëpp muy équipe am ñu ngi fii toog maa ngi nuyu la direction de l'emploi mi nga xam ne tamit suma frère Pape Modou Fall moom moo ko jiite ñoom it ñu ngi fii maa ngi nuyu waa direction de l'horticulture mi nga xam ni ma Macoumba Diouf moo ko jiitee ñi ngi fii maa ngi nuyu waa ministère de la culture et de la communication tey ñu yabal fii Anne Marie mi nga xam ni mooy directrice euh, bi nga xam ni moom la fi ministre de la culture Abdoulaye Diop teg euh, mi ngi fii toog di am kontante nag ci teewaay bi di nuyu waa association FILS yëpp nag di nuyu Ibrahima Ly mi nga xam ni mooy sama secretaire général mi ngi nii sama wet toog maa ngi nuyu Ibra mbay mi nga xam ni mooy trésorier euh, waaw sama papa Bekaay Mbaye ñu ngi lay nuyu di jox sa wàccuwaay maa ngi nuyu Ibra mbay mi nga xam ni mooy trésorier euh, école de mooy mooy trésorier association PIS mi ngi fi toog maa ngi nuyu Bëgg Fàllu mi nga xam ni mooy président comité d'organisation bu association PIS mi ngi fi toog maa ngi nuyu Amadou Cissé mi nga xam ne dafa am ñaari casquette mooy directeur des opérations de l'ANAMO mais association FILS gis liggéey bi muy liggéey ak Maodo Malick Mbaye mu nekk liggéey bu am solo ñu jël ko nommé ko président comité formation insertion bu association FILS mi ngi ni toog maa ngi nuy El Hadj Madiara Thioune mi nga xam ne mooy agent wu tafaatin association FILS nome ko tout ce qui relation extérieure moo ko yor mi ngi fii toog maa ngi nuyu Mbaye Sall mi nga xam ne tamit mooy suñu chargé communication di yàlla bu baax nag euh, di nuyu Abdou Badji tamit mi ngi fii toog euh, di sant yàlla parce que président Sidi Diakhaté ñu ngi lay nuyu yow ak euh, président euh, Serge Meissa Ndiaye Assane Fall mi ko fi teewal mi ngi fi toog ñu ngi sant yàlla bu baax Sidi li nga wax ci Maodo dañu koy dëggal parce que ñun yàlla dafa def ñu nekkoon bitim réew def nañ fa fukki at ak juróom daan fa liggéey daan daan suñu doole mais bañ fay liggéey dañ daan liggéey sécurité garde corps rapproché balaa ñu ko def it agence bi nga xam ni moom lañ bëggoon liggéey dañu ne il faut nga am formation professionnelle ndax nit lépp lu muy def rek dañ koo cee war a tàggat loolu noonu ñu tàggat ma ci tàggat ma ci ba yàlla def ma am liaas bi foofu mais dañu ne tukki jom la mais ñibbi si fulla la ma ne nag comme que làmb moo nekk sama deret boo juddoo Faas màggee parcelle di doomu Bawol da ngay bëgg làmb ma ne bëgg naa dem sama réew jéem a xool nan lay jàppalee jeunesse bi def ma ñëw nekk promoteur de lutte commencé tëgg ay mboppat ci gox yëpp sama papa Ousmane Diouf mii li ci wax yëpp dëgg la suma papa la suma papa dénk ma ko fu ne gunge na ma fa ma dem ba saytu lu bëree bëri mooy Sénégal bëri nay mbër mais booy seet écurie bu ne bu amee cent lutteurs juróomi nit ñoo ciy bëri ñi seet ñëpp dañu gunge mbër bi te mbër bi bu fekkee ni tey liggéeyul bëriwul buñ ko encadré wul rek tey mën na dugg ci safaan loolu moo tax. ñu taxawal association bii tudd formation insertion des lutteurs du Sénégal muy un lutteur un métier mooy initiative jàppale mbër yëpp ba ñu am formation am insertion di ci sant yàlla bu baax nag ndax loo gis rek début bi day metti mais yàlla dimbali nañu ci mbaaxam ak yërmandeem li ñu wax ci DG Maodo Malick Mbaye dama koy dëggal ak waa ANAMO Maodo Malick Mbaye daf ñu recevoir ñu toog ak moom waxtaan ak moom ñu wax ko suñu projet xamal ko ni ñun li ñu tax a mooy jàppale mbër yi ñu am formation am xëy jayuñu nag mu nekk nit ku dëgg parce que nit ki lay dimbali parce que ñun mënoon nañoo toog bitim réew man kii ma dendal responsable la à Dalifort mi ngeen liggéeyam ak ñi may àndal ñëpp mais bëgg leen a jàppale képp moo tax ñu bàyyi suñu lépp ànd ak yéen mais jayuñu dafa toog ak ñun wax ñu li nga xam ni mooy dëgg nee ñu nag franchement dinaa leen ci gunge ndax li ngeen di def jaamu yàlla la li ngeen di def. jàppale ñu la moo jàppale président de la république son excellence président Macky moom moo njëkk formé parce que l'histoire retiendra mbër bu demee ba am attestation c'est grâce à Maodo mbay moo njëkk formé mbër yi kooku man damay am contact tey bu ma ñëwee Thiès li muy def nii di ko si di jaaxate ñaanal ne président Macky Sall na ko bàyyi xel gën ko yokk doole ki la may ndékki bu la diggee añak dina ko def kon nag waa Thiès li ma leen mën a wax nit ku dëggu la nit ku baax la nit ku am yërmande makaarimul axlaa képp moo nekk ci moom kon nag ñu ngi kontaan ci moom formation yi nag tey moom mii la parce que li ma wax demee Ismaïla Mbaw nu ma ko nii Maodo ndax ma wax lépp ne ma Maodo am na taxawaay ci bés bi jox nañu xaalis bu bëri defaral nañu t-shirt mais ma ne ko yéen avantage bi ngeen gën a am ci Maodo sax mooy li ko président dénk tey ñu dañoo signé moom benn convention boo xam ni mbër bu ci nekk tey dina la dina dina ci ànd ak ñun jàppale la ba nga mën am formation loolu mooy yillay bés bi nii nangeen ko jàpp gor la nit ku baax la ndax Sëñ Blaat daana wax ni nit bu baaxee da koy wax nit bu la defalul dara boo ko gërëmee am naa fekk nga nit ku baax la nit ku yiw la nit ku gëm boppam la nit ku bëgg Sénégal la nit ku bëgg Thiès la kon nag Maodo mation spéciale di gërëm nag mm, Amadou Cissé mi nga xam ni moo ne sa wet di suñu frère di suñu xarit di la jàppale boo yëgee di la jàppale boo yëgul di nit ku gore di gërëm biraan ak sayer ñi fi nekk ñépp di gërëm nag waa Thiès yi di nga ma euh, euh, euh, DG jàmbaar dëgg mi ngi ni Ismaïla ñi ngi sant bu baax au passage Jili Wade nga xam ne lii yëpp moom moo ko waral xale la bi mu taxawalee lii yàggul ñeenti weer rek la toll Jili Wade woo ñu ne li ngeen di def am na solo dañoo bëgg Thiès bokk ci ñu ne ko bu soobee yàlla dina ñëw Thiès keroog li lay wan ne mbir mi du saayir dañoo dañ dañoo déggante génn ñaari fan lañ ci teg signé Maodo Malick Mbaye convention mu ne ñu kañ la ñu dem Thiès ma ne ko pourtant de ci la ñu nekk nii mu ne lu mu gën a gaawee gën a baax ndax man lu ma am Thiès ma ko gënal kon nag boobu ba léegi ku ne xam na ne association daa métti jóg ko daanu la mais ngeen di góorgóorlu di góor góorlu ba yàlla dimbali leen ngeen gore nag dem ngeen ci ku ne mais bi ngeen ñëwee ci moom la lépp sotti mu lépp dina ko jël en kon nag Ismaïla yàlla leen yàlla taxaw yow ak ñi nga àndal ay gor ngeen yàlla leen yàlla jàppale di gërëm bu baax aussi ñi nga xam ni tey ñooy partenaires techniques yi teew fii dama bëgg yéen ñëpp ngeen déglu leen te teelu leen parce que lu am solo la affaire bi du waxtaan Kaffrine dem ñi fi ñëw di ay partenaires technique dañoo ñëw pour jàppale leen ci ay formation muy waa ANAMO di direction de l'emploi parce que boo nee formation insertion la ci deg Pape Modou Fall mi insertion fépp fu Maodo formé rek bëgg na leen jàppale ngeen am xëy ëllëg kon nag na ngeen toog na ngeen déglu te ngeen adhéré jënd ay carte membre yéen ñëpp bu ko defee mën a tàbbi ci mbir mi ñu ngi nuyu ñëpp nag di nuyu presse bi presse bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ndax presse fu mbir toll rek moom moo ko fa yóbbu ñu ngi leen di gërëm di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama papa Bekaay Mbaye di soog a teew ndax moom ak sama papa Ousmane Diouf papa Bekaay yi euh, fépp fu association fi toll rek dugal na ci loxoom nit ku baax la niñ koy ñaanal gudd fan ak ndax sagu Sénégal sagu communication Sénégal la kon nag papa ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu ñu fi teew ñëpp di di leen jaajëfal di nuyu monsieur le maire si la ndax espace bi bu ñu ko amee franchement moom moo ñu ko jox kon nag ñu ngi koy gërëm di ko kii di ko di ko di ko di ko jox wàccuwaayam wax ci sax dafa diis ndax dama jóg dama am dëj bu metti ndax sama yaay ki topp ci moom moo wàcc liggéey moo ko sama yaay bokk ndey ak bàyyi bërki démb mën naa ne sama yaay jur la am ci man kooku moo ma bi ma amee deux ans ba day nii moo faatu bërki démb ci ngoon démb ñi ngi ko suuli woon ngumba fi ñu toll bu ma demee suba lañ koy saraxal nakaar laa fi ñëwee mais lii farata la mënul woon ñàkk di leen jaajëfal yéen ñëpp jërëjëf merci beaucoup. merci Diop jërëjëf asalaamaaleykum mbooloo mi yaakaar naa ni pour ma pour ma déggoog euh, nos camarades de la presse je pense que interview bi mun naa ko def fii rek defal leen français wolof. donc xam nañu à peu près ce qui comme information ñu wax ko pour éviter génnaat di di taxaw parce que xam nañu yàgg ngeen fi depuis lors euh, monsieur le maire de la ville de Thiès euh, mon frère et ami Talla Sylla je pense que li Youssou Diop li nga wax sànq en tant que directeur de cabinet du de monsieur le maire waxuñu ko waxu waxu mbooloo Talla c'est mon frère c'est vrai frère de relation yi yàgg na ma mère daf doon wax ni lu yàgg dëgg la mu ne gëmul lool lu yàgg te rafet mooy dëgg te mën ak Talla yàgg na rafet na donc nuyul ma ko lu bari bég naa ci cër bi mu ñu joxe mais bég naa tamit ci contribution ci lii nga xamante ni ñu ak ndaw ñi ñoo ko bokk je pense que le maire a montré que il a une moom am na une autre idée de sa mission ñu ngi koy encourager bu baax di nuyu une fois encore la direction de l'emploi dirigée par notre frère Modou Fall est très bien représentée ici par mon jeune frère jaxate ah Mahamadou Niang bi mooy mu jël kàddu rappeler ay relation yu yàgg yu ñu am te lépp nekk dëgg may remercier la direction de l'horticulture culture le maire Macoumba Diouf di remercier la direction de la culture di nuyu bu baax association euh, taxawu làmb Thiès ki leen jiite di la nga xamante ni moom euh, suñu xamee yàggul mais gis nañu Pastef bi mu am ci lii nga xamante ni ay nawleen ñëw ko ko dénk mu ciy def engagement bu am solo di saluer bu baax aussi la présence nga xamante ni lépp foofu la jóge muy FILS muy association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal dama wax ni Bamba le point de l'histoire le fait historique ci moom la commencé mu nekk ku am taxawaay Bamba parce que nit dugg ci dara mën nga di sax boo ne damay def promoteur damay tëgg làmb xëy na pour am ci dara même bu may jàppale mbër yi mais fils moom li leen tax a jóg rek mooy jàppale euh, ñi nga xamante ni ñoo di mbër yi donc ma lay encourager bu baax di la euh, jaale sa dëj bi nga am di la wax nga nuyul ñu bu baax suñu góor googu sa wayjur vraiment partenariat bi si un partenariat bu ñu teg ci dëgg mais gëm ni aussi day dem ci kanam euh, di remercier bu baax aussi moo frère ami Sidi Diakhaté xëy na dem na mais kàddu yi mu fi yëkkati nekk na kàddu yu am solo yu mu jële ci xolam mais te mbaax rek waral ko comme il a moom suma mag la démb tey soog a ñëw donc yéen yooyu mu am ñu ngi koy ñaan yàlla lépp lu ñëw yàlla nañ ko bokk te mu nekk lu nga xamante ne day jëriñ askan bi di remercier ba wax aussi le CRG de lutte nga xamante ni tey bu ñu teewul woon mbir mi dina am lu mu manqué donc yaakaar naa ni structure yëpp seen taxawaay rafet na may remercier bu baax aussi ma xam ne CRG lutte Assane Fall moo leen fi teewal si je pense bien di encourager bu baax ñi nga xamante ni ñoo di yeneen promoteur de lutte yi nga xamante ni ñi ngi fi di góorgóorlu ci làmb jëm kanam may nuyu aussi suma beneen mag suma xarit en tout cas ñu am relation yu yàgg muy Bécaye mbay Bécaye moom c'est un révolutionnaire de de la ñaar muy làmb ji dafa am révolution bu mu ci indi communication traditionnelle mu am révolution bu mu ci indi je pense que Diop wax na ko léegi et loolu wane na ni que fi ñu jëm war nañ ci mun a am yaakaar mu ñëw ànd ak Bantamba TV indi 2STV am taxawaay bi te loolu yëpp daf ko def rek parce que coloré ak li mu gëm ni li ñuy def lu am solo la je pense que ñi fi nekk def animation yëpp suñu ñaari jigéen ñi ñu leen di beral nuyoo bu baax di beral nuyoo màgg daan xamante ni moom aussi ku wax cees di nga ko tudd Diop communicateur li nga fi wax yëpp aussi générosité la rek moo tax bu ñu duggee ci waxtaan wi nag dama wax ni tey bu ma encouragé bu baax toute la direction de l'ANAMO toutes les structures de l'ANAMO yi liggéey ci mbir mi nga xamante ni pilotage bi yëpp le directeur des opérations Mamadou Cissé moom moo ko def ak suivi bi comme il a dit il le fait avec beaucoup de cœur et je pense que c'est c'est important euh, et c'est loyal de sa part avec toutes les coordonne tout la toute la coordination nga xamante ni la coordination de le de la maison de l'outil de Thiénaba mi ngi ci avec euh, Mamadou Diallo et Birania ak tous ceux qui sont là mais j'aimerais vraiment aussi saluer la présence des jeunes du, du mouvement Gëm sa bopp je la di dis pas parce que on est on est di ne le dit pas parce que c'est politique mais dañ koy wax parce que damay wax ni Gëm sa bopp du du parti politique du mouvement sax citoyen Gëm sa bopp esprit la rek esprit boobu ñu gëm bi ñuy dugg ci politique moom la ñuy ñëw ànd ak yéen bëgg ko bokk ak yéen ginnaaw bi ñu président de la république sasee am lu mu ñu dénk dama wax ni on a plus le droit à l'erreur mbër dama koy wax bëri du métier kooko wax nag d'abord loolu moo nekk premier wax bi nga xamante ni moo indi révolte bi mannequin dafa am jigéen ñu ñëw seet si ma ni ma ñun ay mannequin lañu dañu bëgg a def naa ngeen jàppale ñu man leen mën a mannequin du métier bi ma nee mannequin du métier tuuti audience bi yàqu mais dama wax ni nit ñi bu ñuy xale yi pour ñu jëriñ leen il faut ñu wax leen dëgg dëgg sax mën na metti mais il faut ñu wax leen li am bépp lépp lu nga xamante ni danga koy def te ci tarfatal ay di bu gàtt nga mën a tax dootoo ko def boo màggatee dootoo ko def boo feebaree dootoo ko def boo amee sa cër dara dara dara dara dara lu nga xamante ni rek am nga ci problème doo ko def loolu bëgg-bëgg la ñuy wax passion mais lu métier métier mooy li nga xamante ni danga koy jàng man ko nga mën a waat ni bu jàmm rek dee am mën naa ko def bi may am fukki at ak juróom ba bi may am juróom benn fukki at te képp kuy dugg entraîné ba am doole taxaw di bëre ni man mbër laa maa ngi bëre bi nga yeewu di dem boo yeewoo di entraîner wala nga yeewu di dem bëri ji suba ba ngoon jot xamoo ci sa avenir dara ndax am na lu day ni lu day ni tarfatala ay ni bu la arrivé rek daanaka kenn dootu la boole ci mbër bi ñu ñëwee seet si ñu dañ leen wax ni leen mbër du métier loolu nag koo ko wax te mu ne man dama gëm ni bër laay def day metti ñun la mais duñu lay yam foofu rek dañ lay wutal métier. ci la ñu jël avec fils fanweeri mbër formé leen ci sérigraphie tey ñooñu lii ñu fi defar ci t-shirt am na ci ñi nga xamante ni ña ngi koy def di am as tuut jàpp nañu ñooñu même bu ñu bëriwul gaañuwuñu te li lay wan ni aussi bëri passion la mais nit dafay am métier ñi fi jaar ñëpp landing jàmmee nga xamante ni mooy icône senegal Sénégal bu ñu ko tuddee doomam mi ngi ci saal bi Youssou Diame mais bi ñu ko tuddee moom sapeur pompier la woon mais mënoon na wax ni rek man damay bëree daan sama doole bu ma daanee sama doole teral samay waajur ñu ni leen jàngi leen métier wax boobu nag boo dajee kuy politique te bëgg laa fexe rek mbooloo mi bari ñu tàcc ko du la ko wax mais ñun dañu gëm ni en tout cas lii ma dese ci ci àdduna bu may yëngu ci wàllu politique wax bu neex kese mënatuma ko wax ji nag du naqari dina tegu ci teggi mais ci dëgg lañ koy teg kon loolu ñu defoon ak waa FIS bu ñu ñëwee tey la indi ko Thiès ngeen ñëw ànd ci ak ñun dañuy wax ni leen nit ku la waxul dëgg moo la nax e je pense que ci ay discours dañu yàgg foye xale yi mais xale yi aussi dañu yàgg bëgg ñu leen di foye cest à nit boo jàkkaarloo boobu war nga ko woon a wax li am parce que fii ñu jëm ci Sénégal bu dee danga naan damay politique joxe xaalis am na ku la jàkk joxe xaalis fopp te bu mu demee élection gañewul bu dee da naan fu ñu ma woo ma wuy ji am na ku la dàq wuy ji fopp te gañewul kon léegi li fi war a des mooy ñu waxante dëkk mu naqar yi mais boo tëddee nga xam ne kii dëgg la ma wax Bamba bi mu ñëwee wax ñu lépp wax ñu côté financement dama ko ni ay la yéwén ñun anam moom ñu leen financer même bu dee benn dërëm mais mu nekk nit ku xam nga nit nopp nit day day bëgg dëgg y a des yi nga xamante ne dañ bëgg ko leen di nax dëgg yàqul ànd comme laa bi jóg bi mu ñëwee ci lañu ànd produire loolu léegi lan moo fi des mooy mbër bu ci nekk gëm ni man bu ma amee métier lii rek lañ leen mën a jëriñ ñi ci amoon métier ñu jàppale leen ñu dellu ci seen métier continuer ko def benn ñi ci amul métier lii direction horticulture wax c'est amul débat cest à ki wax fi léegi au nom de l'ingénieur qui a parlé tout de suite au nom du directeur de l'horticulture waxu fi ay waxu à peu près il a tenu un discours courageux mais réel et sincère te lim leen wax yépp pour ngeen def ko soxlawul ngeen di sonn soxlawul ngeen di def leen volonté rek ak jóg dem ci information bi direction de la de l'horticulture ñu jàppale leen la même chose la direction de l'emploi wax li ngeen fi wax yépp aajowul nit di sonn aajowul nit di fay dara pour mën ci def liggéey maintenant nag nit ñi dañu bëgg leen toog fi nga toog bu ñu waxee gouvernement bi nga xarab dem ci réseaux sociaux yi lu ñu wax nga ni noo amul bu ñu nee financement nga ni noo gisuma ko ñu wax nga ni non seeni nit lañ koy jox yooyu ay wax caaxaan la ay ndaw ngeen am ngeen possibilité bi nga xamante ni xëy na Moustapha Gueye amu ko woon am ngeen possibilité bi nga xamante ni xëy na Tyson amu ko woon même bu fekkente ne am nañ ci ay millions mooy dine am ngeen ay ñu leen jiitee ñu mel ni Ismaïla ñu mel ni Fallou ñu mel ni Serge de lutte ñëw taxaw pour wax a ak yéen waxu dëgg indil leen ay opportunité pour ngeen am métier donc je pense que li fi des mooy dine lu mel nii bu ñu koy def ngeen koy jëmmal jëmmal ji mooy teew jëmmal ji mooy déglu mais li gën a metti ci dem ci mbooloo mooy ñëw ba pare ba nga dem kër ga naan may saawaay nit doon wax lan la nit day am fulla nit day am pasteef pasteefu nit mooy di nekk sa tànk bii foo jóg di ko dem mu nekk farata wala lu lay jariñ dafa am ku ñu ni opportuniste nga mu ne ko opportuniste ak yëpp laa boole ñu ne ko ndax lan mu ne sama tànk beeg sama bopp bi ak sama làmmiñ bi duma ci wax lu dul dafa ma jëriñ intérêt intérêt nag bokkul ak ki nga xamante ni day wër di tappaambalu di non non non mooy dine nga xam li xew ci dëkk bi président de la république Macky Sall ay la yowén boroom ko moom bi mu ñëwee lépp lu mu fi def guléet la dafa ñëw ñu ne financement am na problème mu créé DER/TEC muy délégation à l'entrepreneuriat rapide nga xamante ni tey am na lu man juróomi téeméeri fukki ñaar fukki junni ak juróomi téeméer yi nga xamante ni wutal nañ leen liggéey nga ñëw tey boo dee baykat nga wala bay moo ma neex ñu ñëw indil la li nga xamante ni moo di Prodac nga jóge ci fa ni ma loolu doy la mu ñëw indil la ANPEJ indil la ay structure yi nga xamante ni il faut nit ñi yéen ngeen toog bu ngeen toog da ngeen di toog ngeen ni mais état Sénégal lu ma defal loolu amul couleur xamul parti xamul waaso xamul fu kenn sénégalais moom la moo ko tax a jóg kon yaakaar naa ni. il faut d'abord ngeen gëm leen ni mbër laa mi dama war a am métier ku ci nekk boo génnee ci salle bi ak esprit boobu rek problème bi commencé na am solution mooy booy génn nga ni xoolal li may daj ci entraînement dinaa entraîner bay bëgg dee am te duma am combat wala ma entraîner bay bëgg dee am combat amul benn mbër nag bu fiy tegle ñetti defet ñu lay woowaat nan la kaay bëre da nga yeewu entraîné ji làmb ji ngeen bëgg bu leen ko bàyyi de fonk leen ko parce que nit passion la am nit li mu bëgg daf ciy nekk fonk leen ko mais li ma leen di bëgg xamal mooy ku génn fii li ñun li ñu am tey mu nekk lu ñuy satisfaction bi ñuy am ma am ko Bamba am ko Ismaïla am ko ñun ñëpp ñu am ko ci organisateur yi euh, mooy nga génn nga ni ah man de mbër laa bi may dugg ci biir saal bi mbër kese laa woon tailleur laa woon li gën a phrase bi gën a garaaw nag mbër di ko wax mooy man dama bàyyi lépp topp làmb ji yaa ngi ci erreur bu rëy parce que li nga topp li nga bàyyi téye woon nga ko li nga topp wóorul beneen élément bi mooy Thiès yëpp bu ñu naan kan moo fi musa dem lutte au national combat fi benn combat première catégorie je pense peut bu ñuy wax Modou Lo Modou Anta la ñuy wax dans une moindre mesure ñaata ngeen lan mooy jëm ci kanam fii léegi dans deux ans est-ce que kàttan bi ngeen amoon di ngeen ko amaat soxna yi toog am ay doom est-ce que sa doom bu la nee dinaa la teral te ci làmb laa ko teg wóorul ni yaa mën ñëpp parce que aussi xam nga làmb pour nga pour nga ni moom ci laa bëgg daan sama doole il faut nga bañ a nax sa bopp. il faut nga xarañ il faut nga wér il faut nga am chance il faut ngay daan ñëpp boo amul doole dañ lay da ngay sonal nit ñi quoi parce que vraiment yi dañ lay yóbbu ba taay mais dañ lay lëng di génne làmb ji nga nga nga jóge ci nga am doole am technique mais amoo chance nga am doole am technique amoo chance mais daanoo ñëpp. donc làmb ji li ma leen di wax mooy yu Ndour dafa am chance bu mu am mooy moom passion maanaam li muy fooye mooy métier loolu bariwul moom dafa am chance passion mooy métier mais nit ki bu fekkente ni yow passion bi nga am mënagul a nekk sa métier ba nga am ci taxawaay bu am li lay mën a war mooy nga ni man du ma bàyyi làmb ji de mais tailleur laa damay ñaw a ñaw a ñaw ba 5 ma wàcc dem entraîné ji bu ma dellu see ñëw truc bu ma amee làmb suba bu ma daanee xayru bu ma demee buñ ma daanee tabaski bu jotee li mbër doon faj wala li Moustapha Gueye wala li mbër yu mag yi di faj dinaa ko faj sama machine parce que dinaa pédale dinaa ñëw donc je pense que li ëpp solo wax naa ko mooy bu ngeen génnee esprit bi ngeen dugg si woon fii parce fii du woon signature de contrat du won assemblée générale politique mon frère rappelle-moi le nom s'il te léegi daf ko wax li ëpp solo ci jamono ji mooy lii ñu toog nii di waxtaan lii nag boo dajee homme politique bi nga xamante ni dafa bëgg falu suba wala dafa bëgg ku ko tàcc wala dafa bëgg mbooloo mu bari ñu ñëw wala dafa bëgg tey mobilisation ngeen ñëw taxaw mais lan mooy ndeyu bu bu bu élection jotee ñu jël ci yéen defu leen formation garde corps amu leen du ngeen def leen benn arts martiaux yi def leen ci benn du ngeen karatéka du ngeen judoka du ngeen leen da ngeen a am doole rek nga gis homme politique buy ñëw day ñëw dajale leen ngeen sole leen ay t-shirt nag def leen kii gars yi takk seen lunettes yu ñuul ñëw taxaw di amul sens en tout cas ma soxla ko. man élection day jot laajal sama gars yi ba mu jeex damay ànd di dox ak ñoom sauf bu laajee yenn aspects yi ñu gérer ko très rapidement dem donc autant ñun ñuy politique dañu war a seet relation boobu mais nag olof nee na nit lu mu nangu ñu teg ko ko dagal na ou tout au plus bu élection jotee ñun li ñu bëgg nii mooy former leen en en technique de carte rapprochée mm-hmm. bu ñu leen di au moins bu ñu ci amee fukk wala ñaar fukk nga xamante ni am nañu seen benn écurie formé na leen ci élection bu jotee wala même bu élection jotul même bu fekkente ni nit ñi dañu soxla garde rapproché ñu ñëw mën a contracté ak yéen fay leen ñun soxlawuñ ci dërëm man du Bamba du lii du Ismaël ñun xam ne la lañ ci am comme soxla mooy dine ëllëg rek ñu gis ni suñu rakk suñu doom suñu jarbaat yi gëmoon ni kat ñun bàyyi woon lépp pour làmb jël nañ ñi seen xel ni mbër du métier mbër bëri du métier bëri passion la maanaam bëgg la nit da nit danaan damaa bëgg way kii ni man damaa bëgg fecc kii ni man damaa bëgg def leneen kii ni nga def ko nag mais nga wutaale sa métier pour gën a daan sa doole donc je pense que li ñu leen fi tegtal yépp mbir mi foofu la jëm il faut ñu xool leen ñun ci kon ci dëkk bi la ñu dëkk on a un mouvement national gëm sa bopp bu doon te dañ bëgg fii fees kese fii bu ñu bëggoon mu fees kese mën nañu dajale autant de femmes et de jeunes mu fees dell gars yi ñëw tàcc yi riir ñu wax fii benn mbër ñëw bàkku ñu wax après ñu dem te ça ne servira rien du tout mais bëgguñu leen a politiquer mais bëgg nañu ànd ak yéen ci wàllu àdduna ba ëllëg nu mun ci demee bu fekkente ni taxaw dafa jot ngeen xool xam ni kii kat la ma doon wax du intérêt ci man et je pense que loolu ci discours la loolu ci taxawaay la je pense que élément boobu moo di wax leneen li nga xamante ni nag mën nañ ko jël comme décision mooy au moins ci ñaar formation dinaa wax directeur des opérations mu seet ko mooy formation en sérigraphie rapidement ñu defal leen ko formation en réparation de téléphone portable parce que ñun dañoo jël métier yi nga xamante ni nit ñi dañ koy soxla ak blanchisserie tey dañoo jël li nga xamante ni nit ki soxlawul muy jàng dara mooy formation en réparation de téléphone portable ñëpp koy soxla. formation en pressing maanaam faute ak passé nit ñi dañ ko war a jàng formation en en en sérigraphie ñett yooyu mooy yi nga xamante ni war nañ leen ko mën a defal très rapidement bu ngeen ànd association taxawu làmb ak FILS ak ANAMO ci convention bi ñu mën leen ko defal maa ngi éclairer sànq je pense que Diallo ñëw na ci bi ñuy wax ci pourquoi Thiès ville amul maison de l'outil bi ñu ñëwee je pense depuis 2014 bind nañu maire yëpp pour wax leen nañ ñu jox espace mais amuñu benn espace bu ñu mën a jox Thiès pour ñu mën fi def maison de luti moo tax li ñu décidé mooy à partir de janvier comme amuñu fu ñu ko defee ñun ci suñu budget prévoir nañu louer benn kër un local mu nekk une convention ñu signé def fa une maison de l'outil pour la ville de Thiès parfois nga dajeeg nit xëy na mu poser question ni Malick li muy defal yeneen région yi dama leen di wax ni leen le nombre de jeunes yi ñu forme fii Thiès dans la ville de Thiès moo ana moo yim ci def formé nañu mille trois cent cinquante jeunes biir Thiès réparation de téléphone portable pressing euh, sérigraphie ak euh, ak euh, nu mu tuddati ak euh, mécatronique bi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a boo ko jëlee war na mat mille trois cent cinquante je pense au moins ci lañ yam ay jeunes yu dëkk Thiès yu ñu former donc je pense que globalement baaxoon na pour ñu expliquer leen loolu di leen wax ni leen bëri leen entraîner leen mais ñëw leen ci métier mi nga xamante ni mooy tax weer wu dee wala ngoon gu jot nga mën a mos dara je pense que parce que fi may terminer élément boobu moo ci ëpp la importance mooy di ne que mbër moo gis mu entraîné ba fees dell am doole buñ ko encadré wul buñ ko encadré wul joxuñu ko métier amul làmb c'est un potentiel délinquant nit nit la nit lu weesu nit nit boo entraîné am doole ba fees dell am jot li taxoon nga entraîné gisoo ko mooy amoo mbër amoo làmb maanaam amoo combat gañewoo ci xaalis lu ci ëpp délinquant ci nga jëm amul beneen sujet bu ñu la mën a defal ci leneen parce que boobu mooy lépp mat na te dara yeddu la dara tënku la donc je pense que initiative bi mooy xeex délinquance maanaam fexe ba xale yi bañ a nekk ay bandi yuy dem ci di def lu nekk parce que fees nañu am nañu doole je pense que pour conclure et en français je vais juste euh, remercier en tout cas tous les euh, participants tous les initiateurs l'association Taxawu Lamb de Thiès euh, l'association FILS dirigée respectivement par Ismaïla et et notre frère Bamba Mboup qui nous a permis de tenir ce forum. Ce forum-là est le lancement d'un concept, un lutteur, un métier. Pourquoi un lutteur, un métier Parce que nous sommes aujourd'hui convaincus que un jeune, un, un lutteur, potentiellement bien entraînés, avec une force physique impressionnante, sans emploi, sans orientation professionnelle et un potentiel délinquant. Et il a été admis que l'essentiel des repris de justice que nous avons, c'est souvent des militaires libérés, mais qui n'ont eu aucune formation ou aucune insertion et ce qu'on peut appeler des lutteurs en activité avec toute la masse corporelle et la compétence physique nécessaire, mais qui n'ont pas eu de formation professionnelle ou de formation dans le cadre d'un métier bien déterminé. C'est la raison l'Agence nationale de la maison de l'outil, dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui consacre un, une part essentielle à la formation, à l'insertion et euh, à la, à la, à, au renforcement de capacités, nous avons décidé d'implanter un peu partout ce concept, un métier, un, un lutteur, un métier, une insertion. Je pense que c'était l'objet de la rencontre et demander à nos fils à nos enfants, à nos neveux qui sont là, de consacrer, de comprendre la lutte comme une passion, mais de ne jamais comprendre ou ériger cette passion en une formation ou bien en une occupation professionnelle, parce que, nous le répétons, la lutte n'est pas une occupation professionnelle. C'est une passion, mais que chaque lutteur développe en lui de compétences professionnelles, développe en lui un métier et continue à se battre pour gagner sa vie honnêtement à la sueur de son front je pense que loolu moo doon lu ñu mënoon a tënk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di encourager bu baax aussi direction de l'emploi lii rek la dama wax ni affaire bi teew la damay wax souvent ni le maire Talla Sylla la sa indemnité de représentation boo ko lekkee day res parce que yaa ngi teew maison euh, direction de l'horticulture j'ai été très séduit par seen discours ak la présentation du document de même chose que la direction de l'emploi surtout li nga ñu expliquer yépp mu leer ci suñu bopp mun mënaluñ leen defal lu ëpp loolu initiative opportunité yi mi ngi fii dem leen vers l'État dem leen vers les programmes mise en place par le président de la République Macky ngeen gis ci seen bopp ku nekk am métier mën a daan sa doole ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala